boo fa duggoon dem dem dem ca diggu géew ba mën naam nga jommi. wax nga nag kenn nekk fa kenn nekk fa. Ablaye moom mu ne ndaje bu neexee day tas bu naqaree. wallaahi wax nga nag loolu loo ci jàng loo ci bëgg a jàngale. waaw ñu xam ne day jeex. bu neexee day jeex. bu neexee jeex. day soxla bu sosay. bu baaxee jeex bu rafetee jeex bu bu jeex na rafet. wallaahi dëgg. la. rek jarul xuloo. damaa mos a romb Double Less ak Mbaye Gueye ci oto. Hmm. ma ma ma ma xool ni ñaar ñooñu toll ci jamono ñoo raw Modou coow ñoo raw Modou Lo ñoo raw Modou Lo ak ñaar ñooñu rek coowu làmb lan ko benn jour ma romb leen ñoom ñaar ñu nekk ci di waxtaan. loo gis day mais mais làmb léegi ak ni ko xale yi jëlee mu doon coow des mu doon coow lu rëy ban jàngal am coow la mu sa doon. mais léegi léegi daa am xibaar yi. waaw yii. li ma benn micro moo amoon. léegi xoolal te lii du a déglu wax dañuy wax ñëpp bokk lu lay wax. xibaar lu nekk lañ koy joxe. waaw waaw moo tax affaire bi bu jëkkoon RTS moom rek moo fi ne ba ci yàgg deux ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw mujj réseaux sociaux yi ñëw gën leen a lembal seen yoon communication di gën a yokk bu démb ak bu tey ban moo xaw a tane. waaw bii bii bii moo ëpp mais man moo gën. mais non bu gën cest am na nu mu meloon démb ak nu mu mel waa léegi sosal la yomb na. mais bu njëkk information boo koy joxe da nga koy traité. waaw da koy traité ba léegi am na ñuy traité. waaw waaw ba ñëpp yemoon am ñu kenn seen cër. ba léegi ko war a jaaree ak war ko war a jaar am na ñoo xam mën a yem jànguñu ko. ak man dañuy jéggi rek sell ni damm na. bokk na ci fu mu jëm ñu ngi naan Modou Lo Reug Reug Modou Lo Tapha Tine. voilà yaa ngi wax ko la. Reug Reug Tapha war naa mën a bëri Reug Reug. ah pourquoi pas Tapha war a bëree moom dee ci yoon lan ko teg Tapha Tine. Reug Reug way non. Modou Lo Modou Lo Tapha Tine. Modou Lo tay li ko sut ëpp ko yëpp ñoo ko waaw ñi ko sut ëpp ko lépp ñoo ko mën ñoo ko mën noo ko xamee Gris Bordeaux ak ak Moussolati ak si des ñëpp moom ñoo ma daan leen mais boo ko sutee ëpp ko ëmb ko da nga koy jaaxal da nga koy jaaxal moom wala man kan la war a bëreel à part Tapha Tine waa ci xale yi rek ah, bàyyi lay bëre waaye damay dégg ñu naan daa war a bàyyi bëre bu mu bàyyi bëre de bàyyi bëre mais moog Balla man ma ne du combat mais est-ce que combat la. est-ce que combat la est-ce que combat xale yi dugg si ñu leen di wooyee VIP yu bees ak lamb ci 2006 at miñ génn. jeex na. ana VIP bi Modou Lo mooy VIP bi. à part Modou laa xamul. ah xale yi. daan moom Modou dama ni Modou Lo fexe na ba VIP bi. seen biir. ah Balla Gaye Bombardier Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo kase na ko. yàq na ko yaay bi c'est fini léegi mbëru fi mbër mbër xam nga mbër. mbër rek ma. kontaan nañ ci yow looy looy digalaat xale yi jàkkaarloog yow di liggéey ci wàllu presse ban conseil nga leen jox. encouragé leen ñoom ñooy le futur. ëllëg bu leen gis réseaux sociaux yi rek yaakaar nañ ci la ñuy yem. déedéet dañuy dem dañuy dem. naan dëgg nag ay ndaanaan la bu leen fi waxal lu ma waxul. suñu papa dafa wax benn wax ne comme kiwee. sa yaay lu muy def ci yow boo koy fàttaliku. non yaay ci boppam la sama yaay man sama xarit la woon békkul la ma daan booy békkul ah man dem naa ba am njaboot yaay booy laay ak maa ngi woyam yaay booy laay yow maa ngi woyam mais dama la bëgg a wax rek yaay keroog Jackson dafa jooy dugalaale ma ci waay waay ban ban ban ban kii nga am ci moom souvenir nga am sa yaay boo xam ni léeg-léeg nga toog fàtte ko. parce que man ma déggee nag mais nag mais dëgëre la nag am na ñoo xam ne non dëgëre la. ah yi moo bokkul. waaw xale yi sànni seen loxo seen yaay yow it. waaw non non non ay wóyu la ñu rek danoo bànn waaye ko de parce que yaay booy du bañ doom yaay bu toroxalee doomam rek xolam moom tàng ko waaye bu soñoon doomam du xëy du mar du rafle yaay booy doom moo tax ñaanal tey na tey ay balla mbuub bu saa ah Ngagne Walo tey na tey tey jii de tey mu dara seen lu ñu fiyu Fatick production Jackson laa xool ah? mu daan xool ni mu daan moom ci moom su fi ñëw père yow li nga wax combat bi moo tax parce que li ma ci génne li nga wax dafa niroo combat bi mais dëgg la Miss Miss Espagne woowu ko la boo fa duggoon dem dem dem ca diggu géew ba mën naam nga jommi. wax nga nag kenn nekk fa kenn nekk fa. Ablaye moom mu ne ndaje bu neexee day tas bu naqaree. wallaahi wax loo ci jàng loo ci bëgg a jàngale. xam ne day jeex. waaw bu neexee day jeex. bu neexee jeex. day soxla bu sosay. bu baaxee jeex bu rafetee jeex bu bu jeex na rafet. wallaahi dëgg. la. rek jarul xuloo. damaa mos a romb Double Less ak Mbaye Gueye ci oto. Hmm. ma ma ma ma xool ni ñaar ñooñu toll woon ci jamono ñoo raw Modou Lo ak Balla ak coow ñoo raw Modou Lo ñoo raw Modou Lo ak Boy Niang ñaar ñooñu rek coowu làmb lan ko benn jour ma romb leen ñoom ñaar ñu nekk ci di waxtaan. loo gis day jeex. mais mais lamb léegi ak ni ko xale yi jëlee mu doon coow des mu doon coow lu rëy ban jàngal coow la mu sa doon. mais léegi daa am xibaar yi. waaw yii. li ma jëkkoon benn micro moo amoon. léegi xoolal te lii du sarax du asaka ci li ne ci ay micro ku ne war a déglu taataan wax dañuy wax ñëpp bokk koy joxe. waaw waaw moo tax affaire bi bu jëkkoon RTS moom rek moo fi ne ba ci yàgg deux ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw mujj réseaux sociaux yi ñëw gën leen a dem seen yoon communication di gën a yokk mais bu démb ak bu tey ban moo xaw tane. waaw bii bii bii moo ëpp bës mais moo gën. mu gën c'est-à-dire am na nu mu meloon démb ak nu mu mel tey waa léegi sosal la yomb na. mais bu njëkk information boo koy joxe da nga koy traité. waaw da nga koy ba léegi am na ñuy traité. waaw waaw ba ñëpp yemoon am ñu kenn seen cër. ñëpp yemoon am na ba léegi ñoo ko traité xool. fu jëm ñu ngi naan Modou Lo Reug Reug Modou Lo Tapha Tine. yaa ngi wax ko la. Reug Reug Tapha Tine. war naa mën a bëri Reug Reug. ah pourquoi ku war a bëree moom bu dee ci yoon lan ko teg Tapha Tine. Reug Reug nag. way ah, non. Modou Lo Modou Lo Tapha Tine. Modou Lo militants yi. li ko sut ëpp ko yëpp ñoo ko mën. waaw. ñi ko sut ëpp ko lépp ñoo ko mën. ñoo ko mën noo ko xamee. Gris Bordeaux ak ak Moussaoudi. ak Bombardier. Bombardier ak Balla Gaye. ñi si daan leen mais boo ko sutee ëpp ëmb ko. da koy jaaxal. da koy jaaxal waaye boo tolloowee moom. wala man. kan la war a bëreel à part Tapha Tine. waa ci xale waaye damay dégg ñu naan daa war a bàyyi bëre bàyyi bëre de bàyyi bëre mais moog Balla Gaye man ma ne du combat mais est-ce que combat la. est-ce que combat la est-ce que combat la parce que nit ñi quand même bëgg nañu combat yu bees ah combat yu mu newoon Modou Lo populaire ah bon ah. Siteu dafa populaire. bu dee ak moto coow la comment coow la. Siteu lu mu dugg coow la. na combat la combat la combat xale yi dugg si ñu leen di wooyee VIP bees yi ak lamb ci 2006 at miñ génn. VIP bi amatul. jeex na. ana VIP bi Modou Lo mooy bi. <laughs> à part Modou Lo ku VIP moom laa xamul. <laughs> ah mooy bi bu bëri xale bëre seen biir. ah Balla Gaye Bombardier Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo kase na ko. yàq na ko yàqee amatul VIP c'est fini léegi mbër fi am mbër mbër xam mbër. mbër rek ci yow looy looy digalaat xale yi jàkkaarloog yow di liggéey ci wàllu presse ban conseil nga leen jox. encouragé leen ñoom ñooy le ëllëg bu leen gis ci réseaux sociaux yi rek yaakaar nañ ci la ñuy yem. déedéet dañuy dem dañuy dem. naan dëgg la Dia boo koy fàttaliku